Assalamualaikum waa Sen Mobile TV c'est du ñëw tey sur une nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire des directs sur Prism Live tey vidéo bi tey la concerne maanaam bu fekkee da ngeen bëgg a def ay direct sur Facebook wala si li nga xam mooy YouTube surtout YouTube ak bi nga xamante ne mooy Prism Live Prism Live defoon nañ si vidéo nan lañ koy télécharger tey vidéo bi tey dañ leen wan tey nan ngeen di defee ay direct maanaam ngeen bëgg a couvrir événement wala ngeen gis lenn ngeen bëgg ko jàllale direct ak li mooy seen chaîne YouTube facilement ngeen teg ci logo def say écriture et cetera am nay fonctionnalité yu bëree bëri yoo xamante ni mu ngi ci Prism Live wan leen ko euh, facilement j'espère que application Prism Live ko dootuñu leen ko présenter parce que defoon nañ benn vidéo wan leen ni ñu koy télécharger tey nag dañuy ñëw wan yi nga xamante ni moom moo lay permettre nga mën a def direct sans plus tarder dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy suñu application Prism Live comme ni ngeen ko gisee ni léegi da ngeen ci cliquer boo leen cliquer ngeen dugg ngeen patienter léegi boo ci duggee nii lay mel. comme ni ngeen ko gisee léegi boo gis nga ni mu ngi commencé jël parce que appliqué euh, vidéo bi mujjee passé wan nañ lañ lié application bi mais boo leen xoolee ci suuf fii nii bii nii ngeen di gis ma sélection mooy bu fekkee da nga bëgg a a da euh, capture sa écran gis nga bi ma sélection nii mooy bu fekkee da bëgg capture sa écran beneen bi mooy bu fekkee da bëgg couvrir événement maanaam ngay caméra sa bopp selfie wala ngay jël benn événement bi nga xamante moo xew nga bëgg ko def maanaam bu ñu xëccee écran bi mu dem droite gis ngeen am na ay fonctionnalité yu fi am comme yi ma def ni carré bi ngeen gis yi ay fonctionnalité yoo xamante ni mu ngi ci biir Prism Live maanaam li ci mel ni média ak li ci mel ni musique ak li ci mel ni texte ak euh, bi ngeen gis ne wet ak scratch mais boo doon xoolee li nga xamante ni mooy média moo ñuy permettre ñu mën a teg suñu logo di teg ay photo wala ay vidéo ci biir live bi musique mooy maanaam bu fekkee da nga a teg benn musique muy daw ci suuf xam nga texte bu fekkee da nga bëgg bind si live bi et cetera xam nga nekk na application bu fiable boo xamante ni mën nañu permettre ñuy def direct doo soxla ordinateur li nga xamante ne moom mooy Prism live mais dama leen wax benn affaire nag bu fekkee dangeen ngeen bëgg euh, couvrir benn événement boo xam 16 novembre lay doon da ngeen di taal seen rotation maanaam rotation téléphone bi da nga koy activer léegi jon ñu xoolee ñun suñu bopp sport léegi dañ koy activer moo ñuy permettre bu ñu juutalee téléphone bi euh, affaire bi mën a topp li nga xamante ne mooy système téléphone bi maanaam di mën a juutu di ànd ak téléphone bi xam nga j'espère que comprendre ngeen ko taille 16 neuvième bi bu fekkee activé wu leen seen portrait téléphone euh, doo leen mën a am taille 16 neuvième bi dafay taxaw rek xam nga mel ni vidéo TikTok yi mais il faut ngeen activer fonctionnalité boobu léegi bu duggee ci li nga xamante ni moom mooy média dañ leen ko doon wan rek léegi dañuy ñëw léegi sélectionné li xamante ne mooy direct kanam léegi buñ besee ci réel bi maanaam ci milieu bi pour ñu jéem a lié suñ chaîne YouTube ak li nga xamante ne mooy Prisma Live léegi da ngay def ni bés fii nga xamante ne mooy set destination maanaam nga jëli li nga xam moom nga bëgg a lënkale ak euh, Prisma Live léegi ñun dañuy sélectionné li nga xamante ne mooy YouTube parce que YouTube lañ bëgg a def direct léegi dañuy def connect euh, connect euh, connecté YouTube waaw da ngay bés si connecté YouTube bi maanaam fi mu def lu rouge bi léegi dañuy lié suñ chaîne YouTube ak li nga xamante ne mooy Prisma Live léegi boo xoolee. daf ñuy rediger ci li nga xamante ne moom mooy email bi bu ko defee ñu dugal suñu adresse email boo leen xoolee gis nga fu mu ñu indi léegi fii nii ngay dugal sa adresse email yow mii di seetaan bëgg def live ak Prism live gis nga léegi da dugal fii nii sa adresse email ñun boo xoolee dañuy dugal suñu adresse email suñu adresse email mooy seen mobile tv arobase gmail point com léegi dugal nañ ko léegi dañuy def li nga xamante ne mooy suivant léegi bu ñu defee suivant automatiquement daf ñuy laaj li nga xamante ne mooy suñ mot de passe gis nga suñ mot de passe laaj léegi ñun dañuy dugal suñ mot de passe léegi dañuy dugal suñu mot de passe légui nag étape bi dañ koy xaw sori gis nga dugal nañ suñu mot de passe après légui dañuy def suivant bu défé suivant rek ngeen xol validation des étapes bi la ñuy laaj parce que suñu validation des étapes dañ ko dañ ko activer pour plus de sécurité maintenant code bi ci téléphone bi ñu yor la koy envoyer légui dañuy patiente mu envoyer ñu code bi euh du moins mu envoyer ñu validation ñu bëss wii rek mu jall way dama naan ko 8 c'est moi gis nga légui ñu jall oui léegi dañuy patienter bu ko defee euh, compte bi connecté wu ak li nga xamante ne mooy Prism Live léegi bu indee fii nag da ngay sélectionné si seen YouTube bi nga xam moom nga bëgg a def direct boo xoolee man sama YouTube moo nekk bi ci suuf boo xoolee mooy sama chaîne YouTube bi boo leen xoolee moo nekk ci suuf léegi moom laay sélectionné mais yow sa seen YouTube bi nga bëgg a jàllale direct moom ngay sélectionné nag waaw nga xam ko bu baax léegi boo ko sélectionné da nga koy autorisé waat léegi ñun dañuy autorisé waat li nga xamante ne mooy chaîne YouTube bi léegi dañ koy autorisé bu ko defee ñu patienter gis nga léegi euh, chaîne bi connecté wu na ak li nga xamante ne moom mooy Prisma Live j'espère que gis ngeen ni ma ko defee connecté wu na léegi boo xoolee moo bësee fii nii nga mu bind al channel gis nga maanaam sa direct lan nga bëgg muy mu nekk public wala privé boo leen xoolee gis nga sax ba actuellement sélectionné public bi mais man dama koy def non répertorié parce que bëgguma direct bi di jàll sama biir canal léegi damay sélectionné non répertorié pour mu bañ a jàll sama canal boo leen xoolee fi ma sélectionné nii moom mooy titre maanaam ci kaw gis ngeen ko foofu mooy titre yow léegi sa titre vidéo bi fi nga koy bind maanaam titre sa vidéo ci ban lan lay yëngu xam nga ci ban sujet la léegi man may def comment utiliser euh, comment utiliser Prism Live comment utiliser Prism Live moom laa jéem a bind bu ko defee moom laa bëgg a titre li nga xamante mooy suma euh, vidéo xam nga mais yow nag sa titre ngay def fii nii quoi bu fekkee da ngay def direct Ousmane Sonko direct Ousmane Songé ngay def bu fekkee beneen direct ngay def et léegi damay bind comment utiliser Prisma Live sur YouTube mais yow direct bi ngay def bu fekkee da ngay couverture événement benn événement xam nga moo xam ay jàngal wala etc cetera bi li mu yëngu moom ngay bind fii nii léegi si suuf mooy d'inscription d'inscription ñëpp xam ngeen ko léegi d'inscription ngeen di bind fii nii bu leen neexee ngeen effacer lii mais lii nag Prisma Live moo ko fi def pour defal promouvoir application xam nga bu leen neex mën ngeen ko effacer. boo leen ko effacé dafay dañ bu ko defee ngeen bind fi li nga xam ngeen bëgg a bind moo xam seen description da ko defal ba pare moo xam da ngeen di bind xalaat seen xalaat ngeen bind description moo xam ngeen ko baax boo leen ko jëlee bu leen neexee ngeen ñëw copier ko fi xam nga bu leen neexee tamit ngeen bind mais man mën naa bind ko defee may bañ a guddal vidéo bi et cetera léegi damay bind li nga xamante ne moom mooy merci de vous abonner xam nga wax ñi nga xam ñooy seetaan vidéo ñu abonné léegi ma pare damay bës doon maanaam ma enregistré ko léegi enregistré naa léegi moy fi ngeen xamni moy mooy révolution bi révolution bo len xolé par défaut 720 pixels lako def mais bo len xolé bu gëna a leer mooy euh, li nga xamantene ni moy mooy bu ñu si bësee boo leen 1080 pixels 1080 moom mo gëna a leer mais il faut que sa connexion gaaw bu sa connexion gaaw bayiko par défaut 720 wala nga wacc si suuf 480 euh, mo gën mais bu fekkee sa connexion gaaw na mën ko bàyyi 1080 pixels mooy gën a leer maanaam haute euh, haute fil fil HD ngay am quoi waaw cela veut dire fil HD ngay am. mais léegi lu ñu dese mooy que fii wanoon nañ leen ko sànq maanaam dama ci insisté waat mooy maanaam public ak privé ak non répertorié man dama koy bàyyi li nga xamante ni mooy non répertorié yéen bu yóbboo ba leen def direct nag bu fekkee da nga eh, defar sa affaire ba pare nag xam nga ba couverture la ba pare mën ngeen ko def public bu fekkee da ngeen bëgg direct bi di jàll directement mën ngeen ko def li nga xamante ni mooy public mais man dama koy def non répertorié pour bañ mën jàll sama kii mais ba leen ma sélectionné noonu moom mooy euh, fi ngay sélectionné miniature miniature bu bëgg def ci kaw vidéo bi laay jëlee léegi damay bës fi nga xamante ne mooy YouTube ki channel bu ko defee mu yóbbu ma rédigé ma directement ci li nga xamante ne mooy sama image gis nga sélectionné na image bi fi dama ko xawoo a dama ko nëbbu nag mais boo fa basiré automatiquement la lay yóbbu sa photo yi nga sélectionné miniature bi nga bëgg a sélectionné gis nga miniature moo nekk noonu di affiché ci suuf lu ndaw loolu ngeen di gis léegi bu ma balaay waatee vers à droite gis ngeen fonctionnalité yëpp mën naa ne fa la nekk léegi damay juutal téléphone bi bu ko defee ngeen xool gis nga lii nag pour nga mën ko def il faut nga activer sa portail téléphone bi manam bu fekk da ngay couvertir ben événement xam bo xamanteni ne yow da ko bëgg jël taille 16 neuvième manam mu nek taille YouTube bi il faut nga dëngal téléphone bi gis nga fi ni ñu leen bëgg won moy manam fi ngay defee euh, bu fekkee da nga bëgg caméra bi di jël yow sur forme de selfie booy def selfie gis nga exemple ni gis nga def na ko sur forme de selfie maanaam bu fekkee dama doon selfie sama bopp xam nga damay gis ni automatiquement li may def bu fekkee nag selfie woo da ngay couvertir benn événement da koy delluwaat maanaam fi def cercle bi ngay bës bu ko defee nga report maanam yóbbu waat vidéo bi muy couverture événement bi wala ngay jël benn vidéo et cetera noonu koy defee mais man couvrir euh, dama dama bëgg caméra nii rek pour vous expliquer léegi damay balaayewaat vers à droite gis nga bu ma xëccaatee ngeen gis bu baax fii nii la affaire yi damay jël ji sama logo fii laa leen wane ni ñuy tegee logo bi quoi li expliqué woon naa ne ko sànq mais fi ñuy tegee logo ci média bës fekkee da bëgg teg sa logo ci média ngay bës gis média nga patiente gis nga sa photo man photo bi laay bi nga xamante ni moom mooy sama logo bi seen mobile TV moom laay sélectionné rek gis nga bu ma ci bësee automatiquement léegi damay bës fi nga xamante ni mooy add ci kaw laay bës ak euh, maanaam ajusté boobu noonu rek bu ma ko bësee gis nga da koy indi ci section média gis nga maay studio foofu mooy studio bu la indee section média da ngay cliqué waat ci li nga xamante ne mooy photo bi gis nga boo ci cliqué waatee rek gis nga ni mel ni léegi indi ko gis nga buñ bësee ci gis nga foto fu la neex mën nga koo teg buñ bësee ci carré bu ndaw bi day rëy gis nga ba tegee sa ñaari loxo gis nga lu la neex mën nga ko manipuler nga wàññi koom ndaw xam nga nga yokk koom rëy fu la neex mën nga fa teg li nga xamante ne moom mooy foto bi mais léegi foto bi ñun dañ koy orienté wam ndaw ñu teg ko ci ruq à droite ci ruq bi lañ koy teg gis nga comme ni ñuy tegee suñu logo bu ñuy montage vidéo et cetera xam nga léegi fa la ñuy teg foto bi léegi dañuy xëccuwaat fi nga xamante ni moom mooy section média pour vous montrer quelque chose gis nga léegi orienté nañ suñu logo ba mu neex ñu foofu léegi yu nga bu ñu xëccuwaatee gis ngeen foofu la ñuy defee texte texte nag lu la neex mën ngaa bind ci kaw direct bi xam nga lu la neex mën nga cee bind gis nga fii texte simple la maanaam ay li nga xamante mooy effet texte yi gis nga effet texte yi moo nekk nii foofu mooy def ko ci direct et cetera mais damay jël ne mooy YouTube bi gis boo ci cliquer deux fois rek gis nga nii lay mel mën nga koo effacer. ci kaw fi mën nga koy effacer man léegi dama koy effacer bu ko defee ma bind fi seen mobile TV dama yow léegi mën ngeen ci cliquer deux fois bu ko defee mu indil leen ngeen effacer mu indil leen seen clavier ngeen bind ci leen neex bu ko defee ba leen paree ngeen def euh, fi nga xam mooy doon ci kaw boo fa bësee noonu rek doon bi léegi da koy ajouté section média gis nga léegi boo bësaatee ci kaw texte bi rek daf la koy indi sa kaw live gis nga bu la ko indilee nii gis nga léegi fu la neex nga koy orienté gis nga fu la neex ko si suuf ji nga c'est bon léegi gis nga bu direct bi daw rek ngay gis mu commencé euh, def effet bindal la seen mobile TV waaw j'espère que comprendre ngeen foofu noonu gis nga musique tamit boo ko bëggee teg c'est la même chose maanaam ngay teg benn musique fond sonore boo xam day daw ci kaw vidéo bi da ngay bës section musique fii ay musique libre la mais bu fekkee da nga bëgg musique yi nga xam moo nekk sa biir téléphone da ngay ba xëccuwaat mu ñëw fii nga xamante ne mooy def drive ba on drive ci fa ngay indi gis nga ma xëccee ci on drive gis nga euh, du moins clavier mooy xaw a daw mais ma ko ci on drive musique yi ñoo nekk sama téléphone gis nga yii nii may balaay nii moom moo nekk musique yi nekk si sama biir téléphone kon cela veut yi nekk sama téléphone moo nekk noonu gis nga musique yëpp ma ko tegee ay musique la xam nga euh, musique yoo xamante ni mu sama biir téléphone moo ko bëggee add may def add di nga moo defee add musique moo nekk noonu léegi ma ci basaatee rek xam nga tegu na ci kaw direct bi gis ngeen ko ni léegi musique bi tegu na ci musique bi nag mën nga ko manipule boo bësee ci kaw foofu noonu ci wetu logo bi gis nga musique baa ngi nii boo bësee ci fii son bi gis nga mën ngaa wàññi musique bi mën nga ko yokk et cetera xam nga pour musique bi fort xam nga nu la neex mën nga ko defee li nga xamante mooy musique bi j'espère que comprendre ngeen ko quoi lool noonu lay fonctionner mais insisté waat fii fii na ngeen bàyyiwaat ci xel bu baax booy def live bu fekkee live da nga bëgg euh, bi xam nga mais man live dama bëgg muy daw privé moo li nga xamante ne non répertorié ma def du moins ma def ko non répertorié waaw du moins fàtt nañ leen expliqué côté bee côté bee ci ruq bi nag moom mooy micro bi maanaam bu fekkee micro bi ak ak flash bi gis ngeen flash bi taal naa ko gis nga ma taalee flash bi day gën a leer gis nga gis ngeen doon xool baax gis nga bu ma ko activé gis ni lumière bi gën naa leer fee maanaam mooy photo bi bu fekkee bëggatoo caméra bi di jël danga koy désactiver maanaam bu fekkee da ngay caméra ba si am luy romb nga bëgg koo désactiver foofu la beneen bi ci côté micro bi fii nii mooy euh, kii wu HD bi quoi bu fekkee da nga bëgg kii yu noir yi nekk ci côté bi pour comme comme comme film yi ni muy mel gis nga ñaari kii yu noir yi gis nga instant moom laa ko activer gis nga moom mooy nekk ci côté yi quoi foofu j'espère que comprendre ngeen ko mooy micro bi ak caméra bi ak euh, li nga xam mooy HD bi gis nga léegi dañuy activer li nga xamante ne mooy live bi léegi gis nga dangay ngay bës ci digg bi rek bu ko defee live bi dem gis nga téléphone dama ko téye euh, rotation taille 16 9 bi léegi da nga koy téye patiente gis nga 3 2 1 bu ko defee live bi commencé dem gis ngeen ni activé naa live bi boo leen bësee ci suuf zone fi rek live bi activé wu na gis ngeen live bi actuellement mu ngi commencé dem gis nga nombre de secondes yi ñu ngi koy gis nii muy commencé dem gis ngeen ko nombre de secondes yi ñu ngi dem gis nga zéro vue la am vue yu am rek da koy defal fi nga xamante ni mooy ci kaw gis nga foofu nombre de euh, vue yu ma am gis nga foofu lay affiché gis nga nombre de minutes yi live bi di daw et cetera bu fekkee da nga def commentaire mën nga bës fi nga xamante ni mooy. Euh, écrit euh, chat maanaam nga commentaire ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay nga wax leen et cetera xam nga gis nga mën naa leen commentaire bonjour rek bu ko defee bu ma paree bu ma defee sën rek bu ma defee sën automatiquement li nga xamante ni moom mooy bonjour bi dem na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo may suivre ci live bi boo leen xoolee léegi gis bonjour bi gis ngeen bonjour bi jug na gis ngeen ko noonu mu ngi noonu yi ngeen bonjour baa ngi noon man maa ko bind c'est la chose tamit bu nit ñi di koy gis ni xam nga live bi actuellement mu ngi dem gis ngeen maa ngi ni di couverture live gis ngeen ko nii live bi après dinaa leen ci faimen vidéo bi dinaa leen wan bii nii may def ci biir YouTube bi boo bëggee annuler live bi nag foofu ngay bës ci ruq boobu noonu ngay bu fekk da nga bëgg ba pare da nga def live ba pare bi foofu ngay bës boo bësee foofu nga patienté boo ko defee application bi charge gis nga chargement bi lay def day def sur forme de cercle bu ko defee nga patienté bu ko defee li nga xamante ni mooy application bi day charge gis nga bu chargé rek automatiquement gis nga pare na gis nga fii maanaam mooy save enregistré foofu partage foofu nga copier URL vidéo bi URL maanaam lien vidéo bi léegi pare nañ léegi dañuy génn gis ngeen ni génn nañ maintenant gis ngeen léegi def nañ live a pare c'est bon maintenant léegi dañuy dugg suñu application li nga xamante ni mooy YouTube studio pour dem wan leen vidéo live bi ñu doon def léegi nii bu ko defee ñu seetaanandoo ko ngeen gis ni live bi ñu doon def. dugg na si YouTube xam nga ba def nañ ko noo répertorier léegi dañuy dugg si li nga xamante ne mooy suñu application YouTube studio gis ngeen live moo nekk nii comment utiliser Prisma live sur YouTube gis ngeen ko nii léegi buñ bësee ci section vue bi gis nga léegi ñu dem seetaani ji li nga xamante ne mooy video bi ci YouTube parce que noo répertorier lañ ko def kenn du ko gis xam nga kuñ partager lien bi rek moo koy gis léegi gis ngeen live bi lañ doon def sànq gis ngeen ko nii live bi ñu doon def moom moo nekk nii gis ngeen ko. fi doon caméra yëpp gis nga suñu logo baa nekk ne gis nga fi ñu doon caméra xam nga et cetera live bi moo nekk nii suñu logo baa nekk ne xam nga moo nekk nii quoi j'espère que comprendre ngeen ni ñuy defee Prism live nu ñuy defee live sur Prism live quoi. bii nag bu fekkee danga nga bëgg couverture événement wala nga bëgg caméra benn la mais bu fekkee bëgg ngeen maanaam bu fekkee da nga bëgg capture écran sa téléphone wala nga bëgg reprendre beneen live mën ngeen cliquer en commentaire bu ko defee dinañ si def vidéo incha allah mais nii la ñuy couverture événement ci li nga xamante ni mooy Prisma live j'espère que comprendre ngeen ko baax ñu leen di invité ngeen abonné ci suñu chaîne euh, YouTube xam nga pour lu ñu soutenir quoi j'espère que tamit astuce bi neex na leen parce que jël nañ suñ temps expliqué leen li nga xamante ne mooy Prisma Live ni ñuy defee paramétrage yi xam nga leen loo leen ci comprendre lu nag mën ngeen commentaire bu ko defee ñu leeralal leen ko mais le maximum def nañ ko wan nañ leen la la ñuy defee live sur Prisma Live ñu leen jaajëfal bu baax a baax.